Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur les 44 tests effectués, 4 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas importés et un cas contact du premier patient déclaré positif à Touba. À ce jour, nous avons 31 cas qui ont été déclarés positifs, dont 2 guéris et 29 sous traitement. Les patients sous traitement à Dakar et à Touba, pour ces patients-là, l'évolution de leur état de santé est bonne. Manglendi Jotoli, communiqué bi nga xamné point de situation mardi 17 mars Institut Pasteur yone ministère de la santé et de l'action sociale et résultats Mais résultat ou test yi def sur 44 prélèvements ci 44 tests n'y ñu def de positif positif nañ maanaam quatre tests positifs ñetti cas yi importé la mooy ñi nga xam ne dañuy jóge ci biti dugg ci suñu réew benn cas positif bi cas contact la moo maanaam jegewaale ki nga xam ne moom lañ déclaré woon positif premier patient bi ñu déclaré positif ci Touba donc ci bésu tey Sénégal déclaré nañ fi 31 cas positif ci 31 cas positifs yi ñaar yi fej nañ leen ñu ñibbi mu am 29 yoo xam ne ñu ngi sous traitement ba léegi malaat yooyu nga xam ne ñu ngi leen di traité nag ñoom ñëpp ñu ngi am tan maa ngi leen di sant di leen gërëm